gannaaw ba combat préliminaire jeexee ñu jub si combat bi si diggante Mama Lamine écurie Boy Sey ak Balla 3 écurie de lutte Balla Gaye jaru wax Balla 3 écurie de école de lutte Balla Gaye loolay yoon Mama Lamine moo mel ni ku def ay dërëj xaw ma ay rasta dërëj waaw Balla numéro moo tedd bopp bi woon ñu kanam ab bi ma ñoom de wax consigne yi lii la règle li tere lii la règle li bëgg ma xel si bëre dama bëgg dugg si combat yu bëre ab bi bi ab bi bi Balankay jat Balankay jat pare na Mama Lamine ngay jat moom tamit pare na ay wa ko yéen a si des seen sëriñ ñi pare nañ supporter yi pare nañ waajur yi pare nañ yéen ñaare si des Mama Lamine moo ngi dox si kawam Balla numéro 3 mu ngi koy déglu te Balla tong na ko Balla piw da koy daan daanu ko déedéet jugaat nañ eh, Mama Lamine Balla 3 eh, li ngeen def li lan la ñaari mbër yi ngi jàpp ñaari mbër yi ngi jàppante ngi nii xalaat eh maama la may suq ne ko maama la may suq ko maama la may ko moo nga jàpp loxo bi bañ mu dóor waaye maama la ngay suqi maama la ngay suqi suqi moom la ngay dóor et percure yaa ngay dugg ne loolu mooy suqi suqi <laughs> eh, oh, eh boobu dal na na Balla 3 fayu na la Lamine dóor na. eh eh eh ay ah, da koy bët déedéet baaxul ñoragul te ñaari xale yi lii moo tax ñu tuddee leen combat spécial parce que c'est spécial ay waay lii xam nga lii c'est spécial waay waay Kajoor production loo def lii ñaari xale yi nga boole mooy lan waay lii c'est spécial waay. bii songante dóorante jaxasoo ku nekk daal di sapp trois appuis jógaat supporter daal jóg xale di ko filmer automatiquement jaay ñoo ngay ñoo ngay di deet deet moytu mbëtt la bu loxoy jógee rek espace am espace bu amee rek turu am turu bu amee rek bu am fu mu jàll amee fu mu jàll rek eh, mbay ey mbay rek ndam am écho de lir Balla Gaye la Balla 3 nekk ma ne loolay yoon Mama Lamine nekk écurie Boy Sey Balla 3 moo ñu wan ginnaaw ñoo ngi jàkkaarloo Mama Lamine ñaari yaa ngay bëre abi bang la day xool li yàlla fu ñu jëm déedéet trois appuis déedéet jugaat na ay eh, par la trois mu def nii ay eh, Mamadou Lamine mi def nii ay eh, xale yaa ngay jugante ba kaw du am abit bu sifflé jàpp na tànk ba da ngay plaqué ay suqi génnal soor soor soor Géant bu ko naaw soor <laughs> par la trois nekk Géant Mamadou Lamine na ko soor neexagul ñaari mbër yi nga jël saako yi lu fay am eh kaw na ma kaw na déedéet da nga génn saako yi da nga génn waaye waxoon naa la ko da génn da nga kaw Mama Lamine Balla 3 da nga kaw da génn eh mari leen si nguur la bokk boo miiri supporter yi eh waaye Mama Lamine dina ma la supporter am booy duñ def nii xale yéen ko yéen yéen man fu ngeen dëkk ay booy jaxaay ngeen ñaaw na de Mama Lamine bi nga bëree lan la. waaw bilaay conseil rek. wallaahi. lépp si ginnaaw gars yi surtout kii. aw ma ni naa si taxrib barki alxuraanu karim. wallaahi. non. xam moo sax. dafa xamul quoi. dañoo signature bi am lu ma ko appliqué. ñëw mel lu ko xeeb. mu jàpp ne Mama Lamine bi daf ma xeeb. ma ñëw def ko mbër. liggéey ak kii bu ma ko jàppoon laa ma ci yàlla bu yàgg jàpp ma ko dafa di tax. bay sëriñ Bamba. laa la waxoon ah. parce que jàpp ma nan la ma def. jàpp ma war na yàlla jàpp ma ngeen billahi. mais am na doole wala amul doole. doole lan moo. kii moo jeex jàmm. ku ne sa kanam ku ne sa kanam ah? bu ngeen bëggee combat bu. gars yi bëre gën a a a bu la neexee wax loolu waaye. waaye lii lan la nii waaye